bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ya laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi azimi sultanik alhamdulilahi ala kulli halin wasalaatu wasalaamu ala afdali alxalqi sayidina muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman nu ngi sant yàlla bu baax di julli ci seydina limaamu di ñaan yàlla yokk koy leer ki ak njabootam gi yëpp maam seydi alayhi salaam nekk si bopp bi di ñaanal mbolem sahaba ya fa nek ci digënté goor ak jigen mag ak ndaw ak mbolem julit di nuyu ñepp di ziar ñepp di jital suñu yoo yeeg ziyaar yeeg ñaani sunub khalifa muhammadul Mukhtar ibnu seydina Namanjon di ko ñaanal yalla yagal ka fi ak sayna limam ak yeb ci digënté goor ak jigen mag ak ndaw di nuyu di ziar nak ña ci khalifa bi muy imam muhammadul basir seydi muhammadul amin seydi maam libas di ka beral ak nuyoo nak akub ñaan di ka ndokkel ci bis yu màgg yi mu génn muy tabaski bi ak ndingali waaye nag di beral ak ñaan sunub sang sayidina Idrissa ibnu Seydina Baye abdullah mi nga xam te ni liggéeyu ndingala bi mag ñi moom lañ ko tegoon ci loxoom mu ànd seeg waa Kàmbereen gi yëpp di leen ndokkeel di ñaanal imam muhammadul Muxtaar ak sayid imam Alassane ak njabot gi yëpp si diggante góor ak jigéen mag ak ndaw ak saxaaba di ñaanal ñi tawat yàlla sama borom ba saafara leen seeni jàngoro ñi nekk si tiis yàlla teggil leen ko ñu nekk ci li nga xamante ni mooy xat-xat yàlla sama borom ba dimbali leen ba ñu génn si tey nag taarix dafa ñëw fas yéene waxtaane spécial Seydina Mandione ibnu Seydina Limaamu alayhimu salaam ñi nga xamante ni moom la ñu dëtmal ak ñaanam maam Njoon nag bun la koy wax doom la ci Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam waaye way juróom wu jigéen mi ngi tudd maam Farma muy maam Farma te Jóob maam Joon nag day boroom askan wu yaatu askan wu tedd woo xamante ni histoire Yoff tey kenn mënu kaa wax te doo leen wax ndax maam Farma mi ngi dëkkoon si dëkk ba la ñuy wax ndinaat foofu la fekkoon baax woy juróom wu góor mi ngi tuddoon maam Matar Jóob woy juróom bu jigéen mi ngi tuddoon maam Mati Gay maam Mati Gueye moomu moo nekkoon way juru ki nga xamante ni mooy maam Farma mi meññ Seydina Mandione alayhi salaam ki nga xamante ni nag mooy Seydina Mandione yàlla da ko boole si kër Seydina Limaamu ñaari yoon lu ko waral ndax maam Farma yàlla dogal ne ki nga xamante ni mooy maam Fatim mi jur Seydina Isa tàntala woon ci moom ndax maam Farma Diop ak maam Fatoumata Diop mi jur maam Faati Meng mi jur Seydina Isa ñoo bokk benn baay kon Seydina Isa Seydina joon rakkam la waaye nijaayam la itam ci seen côté woy jur maam ma nag li ko dugal ci kër Seydina Limaamu histoire bu mat a bàyyi xel la ndax Seydina Limaamu alayhi salat salam dafa amon xarit bu tudd mam alasan muti mam alasan muti momu dan na ànd sayidina Seydina Limaamu alayhi salaatu salam dan nappi waye buñu delu se dan nañu bokko ay jotay di tok mu nekkon xaritam bes sayidina Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ñu gëti ba ter mam Alassane Mëti dal di koy wax yow Seydina day dama la bëgg denk ki nga xamanteni ni sama jigen moy mam Farma seen naa li maamu ah mam Alassane man day xam nga sama situation ni mu deme ci sama kër ga mang fa yoragum dal way te fala dalal mam Fatim te xam nga mam Fatim ak mam Farma lu ñu mam maam Alassane ni ko ah sanga bi lolou day dina ka def de te dina ko ak yow leure ah Seydina Limaamu dal di ñibbi. ba mu ñibbee nag mag ñi nettali nan nii daanika amoon na lu ko jaaxal ci wax jooju ndax bu egsee nan la ko war a waxee ki nga xamante ni mooy maam Faati Meng way juru Seydina Isa alayhi salaam bi mu egsee nag daal di expliquer ki nga xamante ni mooy maam Faati histoire bi maam Fatim ni ko ah loolu day sang bi daara nekku si xanaa lu dul nga nangul ko ka rek ndax sëy moom foo ko yàlla tuddee rek foofa la Seydina Limaamu daal di sant yàlla waaye daal ni ko Fatim man day lenn rek moo ma ci jaaxal mooy xam naa ni ah benn daluwaay bii rek lañu amagum te kat maam Alassane Mati xam naa ko bu baax amuli caaxaan te bis bu fasee sëy bi maam Farma du fanaan fële sa dinaat dana ko mu sëy si maam Fatim ni ko bu boobaa daara nekku ci Alassane bu ñëwee rek ma daal koy jox néeg bi daal di jël waañ bi keroog ba ñu fasee sëy ci diggante Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ak ki nga xamante ni mooy maam Farma way juru Seydina ma njoon mag ñi nee nañ maam Faati ma nga yor Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam mu nekkatul tànk ak ka nga xamante ni moo ko topp woon noonu la balee waañ wa ba mu set daal di fay tëdd daal di bàyyi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ak maam Farma daal di leen di jox fa nga xamante ni fa la daloon moom maam Faati mu histoire boo xamante ni mbokk yi war nañ ko xoolaat càmbaraat ka xoolaat këri tey ak situation bi mu toll ak sëy yi gën cee bàyyi xel kon mi ngi noonu mbokk yi ma Mandione nag boo bëggee xam mooy kan da ngay songa alquran yàlla moo ni woon rasulillahi wa axirina minhum lama yalxaqu bihim wa huwa azizul hakim yàlla nee na rasulillahi keroog bam nekkaay yónni naa la si ñoo xamante ni jànguñu nga jàngal leen laabal leen génne leen ci lëndëm akub sànku ni bu bir bi ñu nekkoon waaye nag am na ñeneen ñoo xamante ni di nga dajeek ñoom ndax man yàlla mi ko def al aziz ma not al hakim maay ki xariñ ay bi bi mu wàccee abi hurayrata nee na laaj ne rasulillahi wa hum yonent bi ñi ngay wax mooy ñan yent bi tontu ko ba muy yoon salman Farisi dal di dugg si sa jakka ja ah yonent bi dal di jàpp si loxol salman ni diine day bu demone ba gent yalla xal sef naka yekiwat si loxol ñu melni ni salman yi bobu nak ma ngay junja ñaarelu yoonam ca li nga xamanteni moy der bu ñuul waye itam nga daal di xool aaya bi mu wacce mom rasulillah netali na ni teud na yalla di koy won moom rasulillahi muy sàmm gétt gu ñuul mu ca jugee nandal gétt goo xamante dañoo weex tal bi mu ko waxee Aboubacar mu ne ko Aboubacar man day gént naa gént gu ma jaaxal mu ne ko loo gént yaa rasulullah mu daal di koy nettali mu ne ko yow daal yàlla daf laa yónni si ñu weex ñi te boo ca noppee dana la yónni si ñu ñuul ñi keroog la nga xamante ni moom la ko rasulillahi tontu mooy nii la ma ko Jibril waxee si fajar muy luy saxal ak ñëwam moo sama sëriñ. sëñ Modou Ndooy ibnu Baye Njugo ba mu tolloo fii ni wa kaana minhum seydina manjoon ibnu seydina imaamillahi alayhima salaam nee na bu yàlla dee wax minhum daal bokk na sa ñooña seydina manjoon kay doomu seydina limaamu yàlla na jàmm yàlla nekk sa ñoom seydina manjoon nag histoire am day lu yéeme ndax léppi kéemtaan la yàlla nag moo ko nëbboon ci kër gi dinaa ci ñëw pour nga xam Seydina Mandione ban ane la gane àdduna ak kañ la jébbalu Seydina Limaamu da laaj sama maam ju tedd ji imaam Muhammadul Saxiir mu niñu maam Njoon daal atum junneeg ñetti téeméer moo di mawliduhu ba at ma delsee la bàyyi lay feeñ mu daal di ko gëm atum junneeg ñetti téeméer moo di mawliduhu ba at ma del see la bàyyi lay feeñ mu daal di ko gëm nee na maam jot mille trois cent si hijri si la gane àdduna ndeysaan nee na nag ba at ma del see muy mille trois cent la bàyyi lay feeñ mu daal di ko gëm ñu ne ko imaam lan nga bëgg wax mu ne limaa mu ne ñetti ruu ñoo njëkk gëm ba mu feeñee ruug sëy naa ma njoon moo leen ñetteel ca lu am sa marsiya ba kon kooku mooy sëy naa ma njoon sëy naa ma nag wax ay jikkoom géej la duñ ci xuus wallaay ndeysaan ndax ku ci xuus da ngay lab sunu waajur Seydi Maam Lu Baas mu baax mi xam nga moom dañu koo faa ndeysaan dañu koo bëgg ndax sunu maître la sunu professeur la ak njabootu bàyyi lay yëpp nag waaye nga xool keroog ba muy waxtaan ci ñaanu maam njoon nga mu defe woon ci përwo ba nee na maam njoon kenn mënul waxtaanee eh, ay mayam wala ay xarbaaxam si benn guddi nga xool keroog waxu imaam saxiir ba nee na bàyyi ma njoon moo am ngëneen moo doylu moo muñ moo di gor am na xam-xam am diraayaak may yu rëy boole karaam mbokk yi bàyyi ma njoon mu am ngëneel ngëneel mi ngi doy sëkk sëkk sëkk si Seydina Limaamu alayhi salaam bi sa wayjur yont yàlla isaa di sa mag nga liggéeyal leen ba ñu gërëm la ngëneel mi ngi doy sëkk si nga nekk ab xale maanaam ab tuut tànk te dëggant janta bi weer wi biddéew wi ñoom ñëpp nga ramas leen def ci sa miset miset mooy poset ngëneel mi ngi yam ci mbooloo ma darka naan kaan yaanu doy yow maam joon moom nag mu joxoñ leen ni leen nañu toppi isa moo di mag ji ma gëm kon loolu ngëneel fa la yam lii dara dara dara du ko jéggi ngëneel daal mi ngi yam ci nga sës si xayru xalqillaahi muy sa wëy jur fa la ngëneel yam ndax lu yàlla bind Seydina Limaam moo ci gën waaye maam saxiir nee na xoolal li muy am nga leen lépp ak a doylu muy lu jafe tey alxanaatu ja doylu tey li ëpp si nit ñi li waral ñu sonn seen àdduna ngeen baal ma ci wax wi dañu jël ba jël la nga xamante ni moomuñu ko boole ko ci seeni alal li ëpp si nit ñi tey dañu baadoo la li ëpp si nit ñi tey dañu goree di li ëpp si nit ñi tey dañu ñàkk ngor ndeysaan xoolal tey àdduna fi mu toll coow yi li ko waral yépp coup d'état du dara ñàkk ngor rek ñàkk doylu rek ndax képp kenn si ñun la nga war a am yàlla bind na ko keroog ba nga xamante ni yaa ngi ci sa biiru wayjur ganeegoo àdduna kon duñu dal mbokk yi seenaa ma njoon ak a doylu سيدنا علي كرم الله وجهه واخون نا كفا بالخناعه كنز نين دين سك سي دويلو تريزور وبيخصني حسن الخلق نعيما نين جيكو جو رافيت دوينا تي خيول غران من دي دما بوغ يالا موي مو خيول غا كالكا تي نو نو مي نين غا يور جيكو جو رك دوينا خيول سيدنا مو نيون نا مو دويلو وايو مو مون اك سيدنا مو نيون muñ moo tax mu topp Seydina Isa 40 ans masta yox yoxi mbaa yoqat ca diir ba mbokk yi tey ko fi topp sa woy jur rek bu yàggee nga découragé walla nga bàyyeeku mais xool kii magam la topp 40 te moom ba muy nekk tànk yàlla xamal na ni ko dina nekk xalifa ndax ba mu xëyee daf ko xibaar Seydina Limaamu Seydina Limaamu ni ko loolu dana am buur yàlla mas na ko woon mbootam xilaafa mu xëy xibaar ka bàyyi laay mu naan kan loolu faaw dana am nga wëlbati toppa sama kaaranta ans gars yi nañu roy maam joon ci toppe googu waaye mu ni moo muñ ak a muñ Seynaa Mandione yoroon na ay secret yoo xamante ni tamaate da koy ci loxo bi soppi ko mu doon or waaye mu soppiwaat ko mu doon tamaate ni li àdduna kese la xam naa nag sëtam bu baax bi sama soppe sama xarit sama baay Seydi Abo mi may dégg xëy na bu ko ne man dina ma defaral ay ay ay yu bari <laughs> yàlla na ko yàlla taxaw defal ko jàmm fa mu nekk xam naa mi ngi ak secret bi xam naa dina ma ko jox macha allah ñi ngi ko si ndokkeel bu baax a baax a baax a baax waaye nga xool moom Seyna Mandione li nga xamante ni yoroon na ko ci teraanga ndax maamam yii ma la fi limal. ñu bari woon ay suuf lan waaye Seydina yoon kenn masu koo dégg si waxi suuf ñu bari woon ay jur lan Seydina yoon kenn masu kaa dégg si coow yooyu ñu bari woon alal lan ay maama waaye Seydina yoon kenn masu kaa dégg ci yooyu yëpp ku amoon wilaaya la ku amoon sañ-sañ ci boromam waaye Seydina Mandione aka wàcce woon boppam lan moo tax dafa mun lépp loo xamante ni tey nit añ ko yor di si noot nit ñi ak di si def lu ko neex seen am njoon amoon na lépp waaye dafa muñ yooyu yëpp lan moo tax mu ni dafa moo di ko dafa gore dafa gore moom seen am njoon wallaahi dafa gore lan moo tax keroog bi mu toppee Seydina Isa ba Seydina Isa dem bàyyi ka fekk rakkam ja maam ak njaboot gi daf leen uuf téye leen. Hmm? yiir leen protéger leen waaye protéger axlu laay protéger kër Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam dafa gore mu ni am na xam-xam maam joon ba muy nekkatu tànk la ko Seydina Limaam génne mu jàng am na diraaya diraaya mooy xam-xam buy nekk si dënnu góor yàlla lii tax nga doon arif billahi maam joon am na ko rëy may nag moom mënuñu koo lim yàlla na yàlla fayal ñu ko moom Seydina Mame Ndione alayhi salaatu wasalaam mbokk yi Mame Ndione nag am na loo xamante ni moo ko daan wax am na loo xamante ni moo daan wax ñun koy maam la wax muy topp leen yàlla ak yoneen loolooy waxam ak moytu leen àddina ak seytaane bànneex kon ëllëg ngeen gis imaam ndekete am na ñoo xamante ne li coow liy bëri yëpp yëpp yëpp ëllëg duñ gis seen alimaam te seen alimaam ku gisul gaa yi perte nga perte nga ndax waxoon na Baye Modou Ba ni ko boo demee neel gaa yi bopp bi dugg àjjana limaamul mahdi moo lay tijjil kon ku gisul foo jëm ku ko gisul foo jëm ndax moom la ñu yaakaar àdduna ak àllaaxira ba mu jaral ñu lu ne buñ ko gisul fu jëm Seydina Mandione nag nee na pour ñu gis Seydina Aliou wax ëllëg faa ñu topp yàlla yàlla sax moo ne aati woon laa na ngeen topp topp yàlla gi lan la mooy lépp lu mu digal ñu nekk ci gaay yàlla moo santaane julli imagineel politique tax ay imam rate ay waxtu ba pare di ko jubilé di ko manifester tey jii macha allah boo xoolee nitu diine yi ñu si bëri bëri bëri bëri yi dañ leen di doyee dal hmm? nitu àdduna yi dañ leen di doyee dal ndax si lu nga leen di dégg ñen ñi ndeysaan da ngay sax rus te dara jaru ko ci aduna nañu topp yàlla nit ki bu toppee yàlla rek laneen lu dul yàlla topp ko waaye gis nga bu toppulee yàlla yàlla bàyyi kaak yooyu yëpp fitnaal ko ci kon nañu topp yàlla waaye nañu topp yonent bi neewoon naa yàlla moo ne aati woon ndaxa waaye dafa waxaat wa maataakum rasul faaxusu li leen yonent bi sant def leen ko yàlla moo digle julli waaye seen alimaam mun na boo jullee ba pare tasabalu werda nañu koy def sayyidina limamu alayhi salatu wasalaam moo ni nu kunu islahan na ngeen nek di rafetal ak di defar wala takunu fasadan bu len nek ay yàqakat kunu musatan lil khair, na ngeen nek di dox yiw wa julasan di sorri na ngeen tok ci lepp lo xamanteni manam maanaam ab ñaaw da ca nek xolal yoy moñ ko diglé hmm? wa azurukum fi alsinatikum hmm? fi nutqiha wa samtiha maa ngi leen di nemmeeku seen làmmiñ ya la ngeen see génne ak la ngeen say noppi wa fi ayunukum ak seeni bët fi nazariha sa xool ga wa abdiha ak la nga xamante ni mooy sa la ngeen di gëmm kon kooku lim ñu tere ak lim ñu digal xam nañu ko nañu def lim ñu digal bàyyi lim ñu tere waaye nag nañu moytu ñetti ñetti tentation yi gars yi vidéo audio bañ mu gudd ñetti tantation yi ku si ku góorgóorlu ba réussir ka leneen li ci des yëpp garaawul bi si njëkk mooy àdduna xool olof njaay dafa ne ah ba nga gis nekk si biiram mu ne la du naa maanaam du li nga foog lan moo tax libaas yaa ngi daf lay mane gan moom àdduna te gaaw berndeel la ngay benn xam nga mane gan mooy lan nga war a am suba gan goo fonk rendeel ka xar miswil ka prépareel ka chambre royale préparel ka nangam nangam nangam ut ay géwal yoo xam te bu egsee rek dañ koy commencé tagg loolu mooy mane gan adduna nag boo ñëwee noonu la lay def dalay dalay daral berndeel la nag li nekk ci biiram ci taar-taar lay ndeysaan ah moo tax yàlla ni woon fala taxurranakum xaayatu dunia gars yi bu mu leen war li nga xamante ni mooy dunduk adduna gi ndeysaan lu jar a bàyyi xel la dalay mën a gan te gaaw berndeel la ngay biel nag nga yaakaar ni fi dañ ciy sax waaye nag muy njuuy la nga daanu ndekete taabul ba si kaw ab ndëpp ab fiir la la ko kàmbala la gasal suuf boo xam te ne dalay njuuy nga daanu si kan kan nga mooy bàmmeel réere ak neen ndeysaan mu ni bu leen ñeetaan bu ñee mukk maanaam xool kenn rek ndeysaan ñeeka ci àddina jay ba dooleel ko tey ñii nga xamante ni tey ay président la ñii ay ministre la ñii ay député la ñii ay homme d'affaires la ñii ay nangam lan ay nangam la ah yàlla dimbali leen ñu am alal ju mu jeex nga xool leen rek ñee leen lan moo tax libaas ne ni dana mbas dana ñuy àddina maa la tuumaal waxuma bu kenn doon président waxuma bu kenn doon ministre waxuma bu kenn doon député waaye nag nan la ñuy def ba doon yooyu yëpp ak buñ ko doonee nan lañ cay doxale looloo jara bàyyi xel ndeysaan kon noonu seytaane seytaane moom ah, lenn rek la fi nekke mooy dalay influencer loo sañul dina fexe ba nga sañ ko loo buggul dina fexe ba nga bëgg seytaane moom loolooy liggéeyam bañ na ko ba seytaane la tudd kon nag nan ko moytu waaw ndax yàlla waxoon na wala xat adala minkum jibilan kasira afalam takunu taxiluun génération yu bëree bëri bëri seytaane sànk na leen ndax nekk jeune ne la waay xale nga eh defal lu la neex yaa fi ne fekk tuyoo boobu ma ngi lay jay moom seytaane kan moo ni la di nga mag moo tax yàlla ni wala xadd adala minkum jibilan kasiran ana ñoom aat ana ñoom samuut ana waa kër firaw na ñoom ñëpp seytaane leen naxoon seytaane leen naxoon ñuy def lu leen neex di wax lu leen neex ñu xëy rek seytaane bàyyi leen mbas leen ñu daanu sibkan ñoom it baneen bi gën a garaaw nag bànneex bànneex moom fala raay yàlla dem na ba am na ñoo xam bànneex la ñuy jaamu muy passion ara ayta man ittaxada ilaahu hawaahu yàlla ne ndax solowun la gaa ñi nga xamante ni ñoom seen bànneexu bakken la ñuy jaam ñi dem ba bàyyi julli ñoom xool seen yoon nekkul si julli ay jigéen yoo xam te ne dañuy teg ay greffage yuy tax duñ duñ julli ay ay semaine seen yoon nekkul si ay góor yoo xamante ni ñoom xool football wala lu ñàkk fayda da leen di tëre julli ay weer am ñoom te ne ay at duñ julli te xool pour ñoom daal loolu garaawul si ñoom quoi garaawul ndeysaan garaawul garaawul si ñoom moo tax yàlla ni fa xalafa min ba'dihim xalfun ñoo fi remplacer génération bu bon adaawu salat danoo bàyyi julli wa tabaxu shahwaat ñu daal di topp seen bànneexu bakkan yi waaye nag fa sawfa a xayyan ñoom ñëpp ëllëg bu ñu deewee sawara nañ jëm ilaa man taaba wa amila saalihan ndere ni danoo tuub te gëm te jëf lu baax kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam te ni Seydina Mandione bëggaloon mënu ko waaye bul fàtte mukk Seydina Mandione nag ci atum 1961 si la génn àdduna Seydina Baye Seydi Thiawlaay taawam ba moo ko jullee ñu daal koy denc kon ñaanam ñu ngi si oo ñëpp di eh, eh, eh, maanaam ndokkeel waa Malika yi nga xamante ni nag ñoo ko aye di ñaan yàlla mooy ñu ci ndam lu kawe kawe suñu njort kon ñaan gaa ngi noonu mardi le 26 incha allah lay doon fële ci Yoff jàmmalaay bëccëg ga kaamil ga di Maam Libaas guddiga ñaan gi Seydi Mouhamadul Amin yalla yalla yo clair seydi na Baye Abdullah ndax xam ngeen ni ñaanu Serigne abla yek ñaanu ki nga nak moy seydi na Seydina ndion ñenti fan la rawante kon ñu baye xel ñaari ñaan yep mi ngi sunu kanam yalla yalla may ñu ci ndam barke Baye lay ak Seydi yalla yalla yo clair leeri Serigne yo yokki leeri Baye Njugandoo yek njabot ga yep allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman alhamdulillah